ga génn ci àddina mu ngi toll ci dix huit mille ñu yore feebar bi génn ci àddina mu ngi toll ci dix huit mille deux cent soixante dix neuf waaw dafa mel ni connexion bi dafa xawoon dem moo tax ma reprendaat wax ji ne ñi ci génn àddina bi feebar bi commencé Italie ba léegi mu ngi tollu ci dix huit mille deux cent soixante dix neuf maanaam démb ak tey yokk na six cent personnes loolu mbokk yi mooy chiffres yi. suñ booloo nag ñi nga xam ne feebar bi fi mu nekk nii mu ngi ci seen yaram ñu boole ci ñi ci wér boole ci ñi ci génn àddina mbokk yi bi mbir mi commencé ba léegi fii ci Italie mu ngi toll ci cent quarante mille six cent vingt six du chiffre bu tuuti ndax wax dëgg yàlla eh, eh, feebar bi eh, fam jógee ca Chine presque lii daf ko duble fii ci Italie ñi ko ci yore Italie da ko duble ñi ko yore ca Chine. ci région boobu ñu doon wax Wuhan muy mbir mu doywaat nag xawma daal loolu nu mu demee euh, ñu bëri nag ñu ngi naan est-ce que Chine nekkul ne da doon nëbb ay chiffres waaye loolu mbokk yi ay xelaat la rek kenn amu ci euh, preuve mbokk yi donc lii mooy chiffres yi nga xam ne ñoo jógee ci euh, ci protection civile ñu ñëw faram-fàcce leen ko fii ci rajo defaral suñu bopp xanaa rek di wax ne mbir mi métti na. Euh, yal na ci yàlla génneeg jàmm waaye wax dëgg yàlla suñ xelaat toujours mu ngi dem ci docteur yi nga xam ne ñoo génn àddina ci mbirum feebar bi di faj nit ba génn ci yore feebar bi ñu wàll la ba nga génn ci àddina ci bés yële ñu ngi doon wax ne soixante et soixante et médecin la woon tey nag toll na ci téeméeri médecin ak juróom yoo xam ne feebar bi moo leen dañ cee dañ leen ko wàll ñu génn ci àddina suñu xel mu ngi jëm donc ci docteur yooyu ak ci nga xam ne infirmier ak ñiy liggéey ci hôpital yi wax dëgg yàlla yal na yàlla euh, indi leen xéewal yal na yàlla def ci jàmm ba ci kenn loru waaye nag téeméer ak juróomi docteur xam ne docteur njàng mu sori la da nga jàng au moins juróom-ñeenti at ci université pour nga noonu docteur euh, ci Italie yàlla génne ci téeméer ak juróom wax dëgg yàlla loolu xam ngeen ne du lu tuuti te euh, ñooñu rek capital bi nga xam ne Italie ñàkk na ko ci ñoom.

dañ ko war changer léegi def ko régiment sanitaire parce que guerre yi wàññeeku na wax dëgg yàlla mais nag lii lu bees la luy dugg ci réew yi euh, di sonal nit ñi donc dañ cee war préparer wu pour que lii su ñëwee ñu am euh, lañ ci taxawee mbokk yi donc lii mooy li nga xam ne moo xew fii ci Italie seen xarit Baye di leen ko jottali di ñëw nag di ci ñambaas ñaari mbir yoo xam ne mu ngi nekk suñ diggante ñun sénégalais yi nekk fii ci Italie ak ci àddina bi. ak nguur gi nga xam ne moo jiite Sénégal te président Macky Sall euh, jiite ko euh, mbokk yi tey wax dëgg yàlla euh, xam ngeen président Macky Sall nee na woon dina yëkkati douze milliards cinq cent millions dimbale ko doomu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk ci bitim réew su ñu wax bitim réew rek mooy fa nga xam ne feebar bi sonal na leen ci réew yu mel ni Italie yu mel ni Espagne France. ñàkkul ne dinañ ci njàmbaas waa États-Unis parce que ña dëkk ca New York wax dëgg yàlla feebar bi sonal na leen torop foofu tamit ña cay loru euh, bëri na waaye nag mbokk yi dama waxoon ne mbir moomu duma ci wax ndaxte wax dëgg yàlla xam naa mbirum xaalis ñun doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew dañ koy yónnee Sénégal mais Sénégal suñ toogee bay xelaat di ñu nar dimbale wax dëgg yàlla booloo bi ak teey bi ci war a nekk ci suñu wet daf cee manqué trop lu ñu vivre la nettali naa ko fii ci rajo defaral suñu bopp ci année yële passé toujours coow day ci bëri xuloo da ci bëri wax dëgg yàlla moo tax ma ñëw tey ne wax dëgg yàlla comme am nañ ci lu leer ndaxte déjà am na ay samba boo yoo xam ne ñu ngi ci journaux yi ñu ngi ci réseau sociaux yi di wax ne di joxe seen numéro téléphone naan ku bugg ci eh, ndimbal li na nga remplir lii dugal ci sa téléphone eh, yónnee leen ko muy nag wax dëgg yàlla lu ñaaw lu ñaaw torop ndaxte mbirum coono feebar bi suñ koy wax képp ku ci wax rek képp ku ci dox rek mbokk yi danga nga war a dox lu sell waaye nag di nax nit ñi di bind ay numéro téléphone te wax dëgg yàlla fon naa ne nguuru Sénégal ñàkkul fayda bay jël xaalis wa diwut ay intermédiaire ci xaalis yi nga xam ne moom la war a dimbale doomu sénégalais yi nekk ca bitim réew loolu fon naa ne wax dëgg yàlla nekkul lu rafet kon nag mbokk yi lépp lu ngeen ci dégg ci réseaux sociaux yi nit ñi di ko wax daan yónnee leen numéro téléphone ñu wax dëgg yàlla góori Sénégal muy police bu Sénégal daf leen war euh, euh, xam ñan la ñu téye leen jàpp leen parce que loolu du lu rafet ci suma xalaati bopp nag dong laay wax ndaxte wax dëgg yàlla ku yemul ci mbir mi ku ci xoolul sa bo sa diggante ak sa borom wax dëgg yàlla yow xawma ci lan ngay xoolati kon nag mbokk yi mbir mi ndimbal loolu tamit wax dëgg yàlla ñi ko soxla nañ leen ko bàyyee ñi ko soxla nañ leen ko bàyyee waaw nguuru Sénégal wax naa problème bi nga xam ne man moom laa gis moo di ne amuñ information yoo xam ne mën na xam ñi am doole ak ñi ñàkk doole loolu moo ma jaaxaloon moo tax ma ne wax dëgg yàlla dinaa ci tey waaye nag mbokk yi tey dama leen di jottali euh, ki nga xam ne moo jiite affaire étrangères ñi koy wax amadu Ba waxtaan wi nga xam ne def na ko Sénégal te réseau sociaux yëpp reprendre ko moom lay ñëw di leen ko jottali yéen ñiy déglu rajo defaral suñu bopp. fan ma ngi jégalu nako ci fan bobu président japp ni suñu mbokk compatriote yi nga xam dañu nekk bitim réew te ñu tudde leen 15e région ñu am nak solo lol, ci kom komu réew mi ndax at yi wess bo jëlé réew mi alal ji mu am yépp danaka téeméer boo jël fukk yi mi ngi doon jógee bitim réew kon ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew am nañu solo lool ci koom-koomu Sénégal moo tax président jëloon ndigal jëloon dogal jox ndigal ministère des affaires étrangères génne ci alal jooju fukki milliards ak euh, genn wàll pour ñu dimbali ñooñu xam na ni loolu ñëpp mënuñu cee jot ndax am na ñoo xam ni dëkk dëgg du leen ci mën a boole mooy képp koo xam ni. yaa ngi ci situation boo xam ni réew mu nga nekk ma ngi lay jàppale képp koo xam ni yaa ngi ci situation boo xam ne la nga dese wala la nga yor ci alal mayu la nga jot ci lii doo ci jot ñi ñi nga xam ni président bëgg na ñu jot ci mooy étudiants yi nga xam ni amuñu bourse te doon def ay liggéey yu sew yoo xam ne mënatuñ ko ñi nga xam ni ngi woon bitim réew nekk ci situation de vulnérabilité moo xam am nañu këyit wala amuñu këyit doon nekk ay commerçant yoo xam ni surtout vendeur à la sauvette nekkoon ci ci ci ci ci ci dëkk yi rawatina dëkk yu mag yi ñooñu nga xam ne te mënuñoo génn mënuñoo dem fenn ñuy dimbali seen njaboot gi ñu bàyyi Sénégal ñooñu la président jàpp ne war nañ leen dimbali fi ñu nekk ginnaaw bi nga xam ni li nga xam ne ñu ngi koy def ci biir réew mi di dimbali famille yi néew doole incha allah. ñooñu kenn du leen fàtte bi xeex feebar bi nag duggee ci monde bi ministère des affaires étrangères amoon na benn comité de crise ndax doomu Sénégal dañoo nekk ci àdduna bi yëpp feebar bi fi mu jógee ci Chine amoon nañ fa fukki étudiant ak ñett ñu amoon benn comité de crise boo xam ni secrétaire d'État en charge de Sénégal de l'extérieur moo ko présidé woon di wax ak étudiants yi di wax ak parents wu étudiants yi ñu dimbali leen mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko tey jii ñëpp war nañu rafetlu ni ko mesures yooyu bokk na ci li sauvé Sénégal ndax réew yi nga xam ni doxawaloon nañu neneen gis nañu tey réew yooyu ci coono bi ñu nekk kon la ñu mën a wax ci loolu mooy gàcce ngaalaama président Macky Sall ci esprit bi nga xam ni amoon na ko donte yëf yi metti woon na lool mu jàpp di war nañu dimbali foofu Sénégalais yi dénk leen gouvernement chinois ñu jàppale leen ba kenn feebaru ci kenn loruwu ci comité boobu la ñu mi ngi dox ba tey ñu dénk ko kon Moïse mu ciy liggéey ak cadre nekk ci ministère bi ak yenn responsable ministère bi ma mën ci cité sama directeur de cabinet mën ci cité secrétaire général mën ci cité directeur général des Sénégalais de l'extérieur ak yeneen responsable yi fa nekk comité boobu lañ ko laaj mooy na gaaw lañ ko laaj mooy nañu ko jëmale nañu defar mbir mi ci procédure yi gën a jub te nañ ko déconcentré décentralisé ko moo tax alal ji du des Sénégal incha ci fan yu néew Moïse dina fi ñëw wax leen réew mu nekk la fay dugg wax leen nit catégorie bu nekk mooy ñi ma lim léegi catégorie bu nekk ñaata lañ lay jox ñaata lañu ñu war a jox étudiants yi ñaata la ñu war a dimbale ñi nga xam ne dañoo nekk ci secteur informel te tey jii. mënatuñu liggéey ñaata la ñuy dimbale ñi feebar ñaata la ñuy dimbale njabootu ñi nga te fi communauté bi ndax président na yi ko ci transparence na surtout mais aussi na ànd ak transparent région bu nekk dañu woy juridiction ci ñun wala groupe réew bi nga xam ne am nañ fa ambassadeur ambassadeur bi ci boppam mooy présider commission bi mais ci biir ambassade boo mënti gis nag am na ñoo xamante ni ñoom ñooy toppatoo les affaires consulaires muy consul généraux yi wala consul wala bu nekkee amuñu ko ci dëkk ba ambassade ba am na koo xam ni mi ngi ci mooy yor responsabilité des affaires consulaires ñooñu ñëpp dañuy bokk ci commission bi leneen li nga xam ne dañu ko def mooy agent comptable bi mooy ñi nga xam ne ñooy day denc xaalis bi. ñoo ñooñu aussi dinañ bokk ci commission bi député de la diaspora dinañ leen boole ci commission bi ak képp koo xam ni jàpp nañ ni sa teewaay ci commission bi dina jariñ askan bi jox nañu ndigal comité bi na lépp pour mu leer lépp pour mu gaaw incha allah am na loo xam ne commencé nañ ko def depuis démb loolu nag mesure de soutien d'urgence la boo xam ni def nañ ko

ñooñu ñëpp seen i njaboot di leen jottale aussi njaalu gouvernement bi ak njaalu ministère des affaires étrangères amoon nañu nag aada koo xam ni danga wàññeeku wàññeekoo bitim réew moo xam say mbokk dañ lay andi moo xam ambassade bi da dimbali moo xam ministère bi da dimbali mais ñun mën nañu seede ni ñu bari ci ñoom président Macky Sall ci boppam jàppale na leen ndax ñu mën a delloo si seen i néew fii ci Sénégal. mais fii jamono bi toll tey recommandation yi nga xam ne jot nañ ko ci mini OM yi nga xam ni am na ak conseil yi nga xam ni sunu autorité yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo ci wàllu santé wax nañ ñu ko fi mu nekk nii ñooñu mënuñu leen indi Sénégal li ñuy ñaan seen i mbokk mooy nañ leen denc fi nga xam ni foofu la yàlla jëlee seen bakkan dinañ nag jox nañu ay instruction pour que sunu ambassades yi ak sunu consulat ñu jàppale ñooñu pour ku ci nekk diine bi nga bokk wala aada bi nga nekk ñu fexe ba ñu denc la ci anam yu dëppoog yooyu moo tax président joxe na ndigal aussi ñu wax nañu suñu consulat dëkk yi nga xam ne dafa jar ñu jënd suuf si leen di denc ba ñu mën fa tëdd kooku it incha allah dinañ ko def ci nu mu gën a gaawee. alal ji njëkk a yóbbante daanaka loolu lay jëriñ maintenant am na yeneen sénégalais yoo xam ni yàlla mën naa dogal ñu wàññeeku ci yeneen feebar bu dul feebar bii nga xam ni tey jii moom moo sonal àdduna bi yëpp ñooñu dinañu waxtaan ak docteur yi nga xam ni ñoom ñoo constaté seen décès képp koo xam ni jàpp nañ ni du feebar boobu moo la yóbbu bu say mbokk yittewoo ñu denc la fi nga wàññeekoo. mën nañ la ci jàppali waaye bu sa mbokk yi jàppale ni da war a ñibbisi te ñun ñu xam ni du feebar boobu moom moo tax nga wàññeeku lépp loo xam ne gouvernement bi daan na ko ci def wala gouvernement bi mën na ko dinañ ko fexe ba ñooñu mën a ñibbisi ñuy dool dellu di jaale mbokk ñooñu di mettitlu di naqarlu la nga xam ni dal na leen ndax ku sañoom bu sa mbokk wàññee nga defal ko la nga xam ni moom la la mujjee ñaan balaa muy génn àdduna wala nga defal ko yow li nga xam ne moom moo gën a dal sa xel mooy andi ko ci réew mi ndax nga mën fa dem di ko ziyaare waaye di ni àdduna bi bindoo tey ak danger yi nga xam ni am nañ ko risques yi nga xam ni am na ci àdduna bi ñu dem ba àdduna bi dem beeg dikk bi dañ ko taxawal ñu dem ba ci àdduna bi boo amee sa doom mbaa nga am sa wayjur mu nekk ci bitim réew mënoo ci moom dara mënoo ko jëli mënoo ko fekki doonte da ko mën bu àdduna demee ba tollu foofu nañu nangu ni la adduna bi laaj ndax réew mi yëpp mën a mucc loolu rek la gouvernement bi mën a def ci loolu la gouvernement bi taxaw moo tax ñuy ñaan sunu mbokk yooyu doonte xam nañ ni métti na parce que ñaari naqaru mooy naqaru am ku wàññeeku ak naqaru la nga bëgg mënoo ko def nañu xam ne gouvernement bi mu ngi seen wet lépp luy ndimbal ñu mën ko dinañ ko def ci autorité diplomatique yooyu pour ñu mën leen denc denc bi gën a rafet am na ay cas yoo xam ne réussir nañ ko ci déjà Espagne ñuy dellu di jaale mbokk mi nga xam ni noppaloo na Espagne denc nañ ko fa ndax jullit la woon ci cimetière ci carré jullit yi fa nekk imam taxawu na ko ba euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ñuy ñaan yàlla aussi ñi nga xam ne wàññeeku nañu ci yeneen réew yi nañ ñu dimbali topp ñu ci loolu ndax loolu mooy la nga xam ni dina leen jariñ ñoom fi ñu nekk ndax loolu mooy liy jariñ réew mi ndax réew mi tey li ñuy def yëpp mooy xeex ba préserver. waaw asalaamaaleykum donc mbokk yi lii mooy discours bi nga xam ne ministre des affaires étrangères Amadou Ba du Sénégal euh, wax na ko ñu jottali ko ci diaspora bi yëpp mbokk yi xanaa rek di wax ne wax ci leer naññ la wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla te nim koy waxee lu leer la xanaa rek di rafetlu wax jooju doon ñaan nag yu mel ni suy teel di am moom ministre boobu muy wax ni mu ko leerale wax dëgg yàlla ñëpp xam ko kon nag di wax ne rek euh, euh, nit ñi nañ dal nañ dal ci mbirum ndimbal li nga xam ne gouvernement Sénégal mu ngi ko bugg a defal doomu sénégalais yi nekk ca bitim réew te suñuy wax doomu sénégal yee nekk ca bitim réew wax dëgg yàlla ñi sonn ñi ko amul te amuñ ndimbal ci gouvernement Italie surtout nag suñu xel mu ngi dem ci étudiants yi mu ngi dem ci jigéen yi nga xam ne liggéeyuñ mu ngi dem ci ñi nga xam ne ñu nga feebar wax dëgg yàlla nañ bi jox priorité ñooñu euh, li nga xam ne rek moom euh, euh, lay ñaan mooy transparence bi ñoom ñu wax nañ ko ci continuer te dafa mel ni wax dëgg yàlla su ma yéene mu ngi taxaw la ma doon yéene pour que gouvernement Sénégal mën di jokkoo gouvernement Italie di caytu ci ñoom information yi nga xam ne am nañ ko ci doomu sénégalais yi nekk ci itali parce que nag pour xam ku feebar wala pour xam ku liggéeyul wala pour xam ku ku ku tollu diggante loolu suñ ko buggee def euh, ñàkkul ne commission yi xam nañ ko sax commission yooyu ñu wax ne ñu ngi bëgg a taxawal ci ambassade yi ñàkkul ne commission yi yu mel noonu dinañ ko caytu pour mën ko euh, xam waaye nag bu ci kenn jaxasoo di taxaw ci consulat yi di ci rang pour tàllal loxo wax dëgg yàlla mbokk yi loolu du leen du lu rafet ndaxte nag consulat yi ak commission yooyu suñ taxawee wax dëgg yàlla war nañ mën caytu fañ nekk ci seen bureau ya képp koo xam ne toll nga ci diggante parce que war nañ xam ñi nekk ci hôpitaux yi war nañ xam ña nga xam ne ña nga nekk ci prison yi war nañ xam ña nga xam ne euh, euh, amuñ liggéey war nañ xam ñi nga xam ne amuñ liggéey seen doole dafa tuuti loolu yëpp xibaar yooyu yëpp information yooyu yëpp mbokk yi gouvernement du Italie am na ko te nag euh, li may yàgg di wax rek consulat yi dañoo war a di yëngu ci yu mel noonu am ko ay données yoo xam ne ci biir consulat yi lay nekk kon nag mbokk yi lii mooy rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf di leen ñaanal jàmm journal bi xaw na plus de dix minutes jàll nañ ko ci euh, mbirum euh, waxtaanu ministre bi nekkul lu ma résumé di ko jox parce que nag wax ministre des affaires étrangères te li wax wax dëgg yàlla rafetlu ko na suñ ko nañ nañ ko waxee commission yi liggéey ko nañ ko waxee wax dëgg yàlla coow du ci am bu leen kenn nax nag naan joxe leen seen numéro de téléphone ak yu mel noonu yooyu ay naxaate la mbokk yi jërëjëf seen xarit Baye Diouf fii ci rajo defaral suñu bopp di leen ñaanal jàmm ba suba ak jàmm jërëjëf.